عني نفى إبليس في بحر ما ينبع daleen ak ci Dieng Saala TV ñu leen di ñaan bu leen fàtte abonné te ngeen laal ko la ci notification bi loolu mooy tax vidéo bu rek ngeen mën ko am jaa ngeen jëf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

ci laa na nekkoon. fi mu ne nii nag daara ji muy jàng. ma koy jàng bu daalu woon. waaw baax danaa ko yóbbu daara soxna maam rek mu jàng. ba mokkal dégg nga. waaw man de lii ba ma ci sa loxo. waaw ah, incha allah. doy nga ma ci lépp lépp lépp. kooku soxna maam rek ne ko ne ko taxaw ba mokkal ma naan dégg nga. ngam ko doy nga ma ci lépp bañ a moom. doy nga ma ci lépp waaw kay alhamdulilah. عنين فإبليس في بحر ما يم daleen ak jàmm ci Dieng Saala TV ñu leen di ñaan bu leen fàtte abonné te ngeen laal ko la si notification bi loolu mooy tax vidéo bu ndugal rek ngeen mën ko am jaa ngeen jëf